parce que jigéen di góorgóorlu di daan dooleem déjà c'est quelque chose d'exceptionnel donc je tenais absolument à être là pour l'encourager et la féliciter voilà. la féliciter mu def loo xam ne nag lu raar la nekk jigéen boo xam ne nii tey mi ngi mi entreprendre tey ban conseil ngay mën a jox tey ci yeneen jigéen ñi pour ñu gën a mën a taxaw def ni moom def ni yow ak keneen ak keneen. ah jàpp rek te bàyyi góorgóorlu ah góorgóorlu dafa baax bo góorgóorloo rek. Euh, sabablu yàlla da lay jàppale n'est-ce pas du loolu la wax ha ah. xëcc bu daggul dikk ah. mu tànk noo noo gisee place bi xam nga affaire yi. sincèrement c'est euh, c'est flattant c'est très beau tout de suite nous en tant que femmes on se sent à l'aise on a envie de de de se laisser euh, pouponner voilà man nak dama mënul wax <laughs> yaa ngi may wax loo. parce que nee naa leen grand théâtre point tv xam nga lu lu lu lu doy war rek lañ leen di jox suñu internet yi lan ngay wax internet Grand Théâtre TV. ah dès de suivre euh, Grand Théâtre euh, TV je pense que vous passez des des informations man de euh, dama xawoon rër. Grand TV <laughs> exclusivité donc voilà. mais mais bientôt on va dire bye bye 2019 et va partir vers 2020 lan ngay wax ñi nga xam dañ lay bëgg ñi nga xam dañ la bëgg di la top à travers les réseaux sociaux sur Snapchat sur Instagram lépp loo xam ne ne Awa de mi ngi koy def ñu koy top bëgg mel ni moom lan nga leen di shout out ci 2020 bi ñu dugg. déjà sant yàlla sant yàlla di ñaan jàmm parce que jàmm ca la lépp xëj déjà euh, di remercier ñi nga xam ne mooy sama famille samay xarit samay am di jàmm surtout ñi nga xam ne mosuñu maa gis xamuñu ma di ma bëggee. mang leen di jaajeufal di leen wax ne ne luma japon ben dina gëna gën a renouveler d'effort parce que ñom ñoo tax aussi may rayanté pour euh, ñu baña am dara lu leen nakari ci man buma ma aussi du ñak des fois ma def yenn yo xamné peut-être du leen neex je saute de l'occasion pour di leen jéggalu di leen ak nit kess la nit kessé la té nit matul n'est-ce pas du lo la wax <laughs> waye nak may wax lo aw Balde wali Seck ku ne aw Balde na wali Seck parce que aw Balde su ko gars yi rek moy aw Balde sans bobu non dafa garaaw. Euh, comme j'ai l'habitude de le dire Wali c'est un ami un frère Madame moom 2009 2018 ça fait presque 10 ans donc c'est un très belle amitié Wali c'est un frère c'est quelqu'un de d'exceptionnel tout simplement. mais comme on dit j'ai un fils je suis mère de famille euh, excusez-moi j'ai un fils. Euh, je prends de l'âge. Pourtant, je suis jeune, j'ai 27 ans, mais c'est de l'âge quand même. Euh, j'ai plus rien à prouver. Je scène je laisse le relais à Samaraki voilà c'est ça voilà c'est ça. Euh, c'est-à-dire garder les sa frère est rek quoi. frère frère donc Wali, on s'encourage mutuellement euh, L'eau c'est normal wala dara c'est quelqu'un qui il a besoin de nous tu comprends ce que je veux dire il a besoin qu'on l'encourage donc c'est l'a que di et je pense que mon côté aussi je m'encourage encouragé à sa façon donc c'est vice versa. On les projets On la c'est jamais facile hein? c'est c'est jamais facile mais ñoo ngi gorlu xam nga nit bo nekkee ci aduna nek ndaw té la sorti baaxul da ngay gorlu euh baña trop focaliser wu ci waxu gauche droite té te xol sa kanam avancer surtout quand tu es une femme et que tu te bats

chaque jour ñu romb ñu on est bien d'accord freedom bi c'est ma façon sourire de relax bi c'est ma façon de remercier le bon Dieu d'être en vie parce qu'il y a toujours pire dans la vie n'est-ce pas donc du coup man damay góorgóoru me sama lépp dama dama ko jàppee euh, freedom voilà Il hein? faut toujours rester classe surtout booy dem ci bërëb boo tu ne sais say nawle nga fay fekk bokkul ak habillement boo tu ne sa biir kër la évidemment faut rester classe c'est important. 2020 Awa Baldé bu classe bu gën a classe ni 2020 incha allah mën a xaar 2020 Awa Baldé dégg naa temps yi Awa Baldé am ah beaucoup plus de stabilité et puis euh, gën a góorgóorlu ci projet bâtir jéem suis dem ci kanam li ne suñu on essaie d'avancer donc 2020 maa ngi ñaan yàlla mu nekk sama année. man xaar 2020 inauguration yu bëri yoo xam ne ni aw dafa. lu nekk du moom rek ne ngeen xam ni moom la wax en plus mu wax li nga xam ne ni moom mooy exclusivité si Grand Théâtre point TV parce que gëjoon na génn dañ koy gis ni rek si vidéo mais reportage moom xam nee naa grand théâtre fii rek lay xewee fi ngeen di amee exclusivité ak ki nga xam ne ni moom mooy Badou 100 pour cent découverte nee naa leen tour day wuy borom lépp loo xam ne nii soxla ngeen ko rek dañ leen koy jox aw Awa Baldé affaire bi la lay euh, maa ngi lay remercier yow déjà maa ngi lay remercier euh, di remercier euh, ñi seetaan Grand Théâtre TV di jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ndax jàmm ci la lépp xej di ñaan yàlla yàlla sàmm ñu yokk mën-mën bi surtout c'est important nga gën a lu ma góorgóorlu ñu ànd góorgóorlu c'est important. yaa fi ne.